salaam salaam sama gaa yi bàjjee nañ ci jàmm ba yenn ngeen ci jàmm ak salaam nuyu naa leen ziar naa leen ah benn benn pinton xaju fi de xaj na fi de sama gars yi pinton ton à huile ngay am noonu ah bu ñu bëgg def tuuti soble tuuti tomate rek daal di koy tiital noonu xaw ko def tey xaw a defar tey pinton ok soble bi ngay gis noonu mu ñëw ko tiital tuuti bàyyi ko mu dooree mu xaw a saafu tuuti benn deux minutes ñu daal di ñëw nag def euh, tomate farci tomate fraîche ñun waa Sénégal dañu tàmm wax tomate farci léeg nga am yeneen internet yu lay laaj c'est quoi tomate farci <laughs> donc tomate fraîche donc benn kuddu bu mag euh, tomate concentré tomate loqati ngoog ñu daal di yëngal nag sàppali def poobar def ail en poudre def kaani tey damay def tuuti kaani à ton dafa war a saf nag def tuuti sauce huître ça se marie très bien tam avec avec le thon sauce huître bi day génne goût daal ci sànni nag tuuti xorom na thon yi saf waay waaw yàlla bu mburu mburu bi croustillant xuyum xuyumee chut tit tit tit mburu bu génn 18 rek nga war a ndogu 19 heures daal di koy xar yëpp ci sa ton benn côté bi beneen côté bi nga mayonnaise ko <laughs> tëj ko nag teg ko ne de teg café Touba bi ci wet bi di xaar heure bi ah loolu jar na lu ne loolu jar na woor deux jours doondo ko mburu bu xoyum xoyum yi rek bu croustillant nga xam ne danga koy tàngal ok nañ ci def ton bi parce que mburu yi bu laxee bala nga koy bala nga koy lekk dañ koy dugal ci fuur bi mu xaw a xuyum xuyumee laataa muy ñëw recevoir ton bi yaa rien de nga jël mburu mu nooy rek daal ciy def ton ñoom ñaar ñu nooyandoo ah boobu du neex waay ngay jël mburu bu croustillant buy xoyom xoyomee daal di jël ton bi dégg nga maam raax ko ci benn côté bi beneen côté bi nga may nees ko <laughs> jàllo jàllo yi yàlla nañu tëx ci lii may waxee ni ndax mën nañ ma ci sumbi ñoom ñoo koy def di ñu sant jàllo ñoo koy def ñoom Penda Jàllook ñoom euh, ñu sant Diallo daal ñoom maman Henriette Diallo Diallo yooyu nga xamante ni ñoom bu ñu wooree dañuy xam ba heure ndogu ñu soog a ximbali. tomba ngoog de sama gars pare na waaw kay nañ ko yër nañ ko vinaigre tuuti bis tuuti vinaigre mi ngoog léegi nag yàq ko ci sa plat mayonnaise baa ngi noonu ci wet bi moom ngay séen mburu yu xuym xuyum bee ngi noonu tegu kafe gaa ngi nee tàndarma bi dégg jàmm bon ndogu sama gars yi on se ku rendez-vous allah na ne defar sa ton daal di dégg jàmm nag donc on se donne rendez-vous sama gars yi nuy naa waatim alfi jaajëfal naa leen nee naa la commentaire yi fële lépp di xew xewi ku bëgg xam lu xew rek demal ci commentaire yi à demain incha sama gars yi